barakallahu jiital soxna Kiné Sy bii ndax moo ko moom ndax yàlla ki daan toog fii waaye bu fi daan toogit mu ngi fi toog mu ngi toog ne ak jàllaabam waaw mu ñëw fan yii ni waaw Moustapha loo pare ci gàmmu gi ma ne ko tout mbokk mi moo ciy seede tout ba def détonation mu wax mbokk mi ni ko kon nag ngeen jàng xatmul Quran تبارك الله مو مملني كنا يغنى دي وقتانة كي شان دي كورس وخو بي وي شان دي كورس بكا دكارك فنين اك فنين موم دفو مسا بغ نتراليتي وي تي كو نتراليتي bañ synonyme de partialité ah. mais tant tax na kon nag dañuy barkeelu parce que wolof mon wax ni lu dul doye loo am doy na waaw ah. ñu ngi am sunu sang وتبارك الله وقتان بي دفي جمتي والو يننتي بي صلى الله عليه وسلم يننتي بي من دا ابورد كوتي بو نتي موم ndax li ko yàlla sédd moo yaatoo noonu dafa am benn waxam bu ma xaw a jax mooy wax boobu mu wax ni may doomu jigéen jooja amul woon lu mu lekk bay dunde seen mu mel ku gàtt xel bu xamul waxin bi rek mën na ci juum ndax foog ñu xam ci ban dimension ci la yonent bi doon waxe loolu ndax dafay mel ni kon li mu am tumuranke ndeyam moo ko ko may te yonent bi ba muy am li muy am ndeyam juddoogul kon moom moo sagal ndeyam waaye sagal rekk la ko def ndax ndeyam lu mu ري rëy ci bëtu jullit am na jigéen ñu bien sûr من لحواء أنها حملت آدم أو أنها به خلق من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء kon amna sak ci ëmb gi mu ëmb yonent bi waaye li muy rëy rëy rëy rëy mënul ëpp ngëneel fatimatu bintu rasul waaw tax arab yi di jaaxle ndax duñu miin ku ne ñu di la dàkkantele sa baay mais lu tax alxasan walxuseyn kenn du leen dàkkantele aliyu bnu abi talib فاطمة الزهرة ليلا ديدا كنتلي حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد لولو تخ كو خمدي mbindeef yi yàlla bind yépp yaa gën xeetu doomu aadama yépp yaay seen sang xeetu yonent yi yàlla yónni yépp yaay seen capitaine boo léegi yu ñu tuddul ant ant ant ant mën nañ ko wax ba mu ba jeex كنك أنت مصباح كل فضل ها. وما تصدر إلا عن ضوئك لا ضواء كم من دون مؤملر ينتي بموك تنقلر وا مملني نك لنيو تد الضمائر الكون تموي لا كونسيانس universelle دفا منول وون نانغو يوننتي بي wàcce boppam ba foofu di wax ni may doomu jigéen ja amul woon lu mu lekk bay dunde seel ba may irul kaw mënul woon accepter loolu xam nga lu tax parce que ba dara xewagul te ñoom ñu témoigner ci yonent bi ni huwa al insaanu qabla insaan bu الان موي الانسان قبل الانسان موي لا تيال دي al ادم il fallait mu bind prototype bi melni mu bëgg te moy al insanul kamil te insaan kaamil boobule ci yonent bi rek la mënoon a nekk bi ci desit mu nekk yonent te nubuwaam jawagul boobu it di beneen particularité bu ñetteel bi mooy mu nekk yonent te risaalam ñëwagul waaw loolu moo tax nag damairul kawn du nangu yonent bi di wàcc ba foofu mu des nag baat bi mu wax ni sama ndey moo amul woon lu mu dunde bay dunde seel te fekk seel suuf yi mu ngi ci loxo yonent bi ndax uutiitu jawami al kalim al kalimaatu al ilaahiya dugg al kalimaatu al kawniya dugg al kalimaatu al kamaliya dugg looloo tax yonent bi nekk al kanz al aadam kanz bi ñetti étagère la étagère bu jëkk bi fi lañ ko defal al kalimaatu al ilaahiya étagère ñaareel bi ci lañ ko defal alkalimatul kawniya étagère ñe bi ci suuf ñetteel bi fi lañ ko defee alkalimatul kamaliya moo tax xubbiba lii fi dunyaakum salaatu annisa wa tiib wa qurratu ayni fi salaa ku ko firi kese kese noonu doo ko dégg parce que ay rumuz la parce que an dañu nekk rëmz ci kalimaat kamaliye yi moo tax ku bëgg a defar pénc dangay ngay yar jigéen bu jigéen yàqoo rek pénc yàqu نح كلمات كمالية الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق لولويتا كلمات كونية مدف رمز بالطيب le parfum te moo perfection bo meuna am bu xeeñul nit liko parfum di xéñ perfection ba des na bu ko defé kalimat ilahiya yi nak wa qurratu ayni fi sola lolo tax kérok biñ ko inviter moom yonent bi defaral ko miche te fek miche bi dañu jël poison def ko ci mu dem bay bëgg lek yàpp bi mu ni ko laa taakul nii li anni masmum du mu'jiza du mu'jiza parce que xuruuf yi ñu bindee al laxam mu ngi ci loxom te fekk na jour bi ñu poisonné yàpp bi baatu al ism al hakim moo nekk chef cuisinier bi te al hakim boo ko déchiffré soixante la lay jox nga jël baatu laxma nga déchiffré ko mu jox la 78 lolu tax yàpp bi wax ak yonent bi moo tax yonent bi nit mën na ko trahir waaye yàpp du ko trahir te bu rëccoon ba lekk ko antidote bi mu ngi fi antidote bi mooy ñaari turu yàlla yi assalaam ak alxalim assalaam xam nga assum mooy poison siin rekk ci nekk ak miim te boo demee ci salaam siin baa nga fa miim baa nga fa ak xuruuf yu nekkul ci summ laxam xaliim xuruuf yi ci laxam yépp mu ngi ci xaliim waaye am xaraf bu nekk ci xaliim te nekkul ci laxam lolo tax muy nek antidote bi wa lolo tax jawami'ul kalim waaw façon bi ko ko yàlla joxe bo boo gisee alkanzul a'zam ifadatik minka ilayka ihaatati nuur mutalsam كان خمول جوهرة الكمال لمدن أنا كلمات يوي فصان بيكي يوننتي بي دي سيرفير إفادتك منك إليك إحاطة النور المطلسم برينكو كي وقت فك خمولو لتخ parce que li tax ngay door wadifa bi ñu daf jox lay istighfar parce que foog ñu vider la motax ñu lay jox istighfar bi foog mu am vidange mais pour bañ vidange bi gagne sa yaram motax tax bu dee ci wird bi di nga wax astaghfirullah yamja ja mais bu dee ci wazifa bi parce que jawharatul kamal bi ñëw moo tax astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa hu alxaj alqayum xay bi ak qayum bi assisté la ndax istighfar bi bañ la xoos ba nga jeex bu ko defee salatul fatih bi soog a ñëw moy def ixaatati nuuril mutalsam ta an nuurul mutalsam moy la ilaha illa allah bay ñëw force bi muy ñewé ak leer yi muy ñewé bu ko yonent bi encerclé wul bu ñëwé ci yow sa roh du ko àttan wa motax mu nekk ifadati ka minka waaye yonent bi encercle ko moo tax muy wat ilayk c'est très important looloo tax برم جوهرة الكمال سيدنا الشيخ أحمد التيجاني دف دي نيت كو كين خمول لان لا ترون دوم دون كاليفيه وحني موم شيخ هو الغيب في الشهاده سي لانتي l'antimatière par excellence. moo tax keroog bi mu waxe waxam bu rëy boobule ni amul benn wëli yu bu yàlla benn te du sama ñaari tànk mu ngi ci sa kaw fekk bi mu koy wax benn nitu yàlla mu ngi toog ni ko wax nga lu garaw xadamaaya haataani فوق رقبة كل ولي الله من لدن آدم إلى النفخ في الصور من كوخ بقراولة بكي ديس موي عبد القادر الجيلاني جيت نلج من مي عبد القادر الجيلاني فوق رقبة كل ولي الله بم كوخ موي جنراسيون بطلو ونك مومي mais man bu dee sama bos min la dun aadam ila nafx fi suur mais wax bi nekkul foofu nitu yàlla bi ni ko danga dal xel ba mu ëpp mu ni ko ci lan mu ni ko yàlla dara safu te mën na xëy bindaat ku la gën mu ni ko lu tax bindaatul ku gën yonent bi bindaatul ku gën yonent mun ko ci ësëlam la lànkoon loolu mu ni ko ni mu lànkee ci ësëlam ni du bindaat ku gën yonent bi noonu la bindaate ci ësëlam ni dootul bind waliyu bu ma gën waxuñu waxu kuy parparloo de xaqiqa la ñuy wax loolu tax xam nga ñun fii lu ñu miin mooy xadaratul mais ñoom la ñu miin foofa jumaatul xadara Voilà. C'est très important. Hadratul Jum'a ñun mom lañu min. Ñom Jum'atul jumaatul lañu min. bu joté ben yonent du manké. Ben mëlëk ci yàlla jox service du manké. Ben wëliyu du manké. Ben ku bokko ci saalihal muminin du manqué am ci bu Seydina Cheikh di ñëw protocole bi di ko gunge mu jëm ci barab bi mu gis ay trasu tànk mu laaj protocole bi ni kan moo fi jiitu te dafa foofu ñu ni ko trace yi bu yonent bi la mu ne kooku sañ na ko koku sañ na ma fi waye budul mom kenen duma fi jitu pour wax la ñom sen may bokoy wax te nit du xalat da fay defa nit dafa am lo ci bëgg fekk sen haqiqa ëpp na sax lool